Euh, Aujourd'hui, je viens de sortir des locaux de la CTV. En tant que ministre de tutelle, je peux considérer cette agression de Maimoun Ndour Faye comme étant un acte d'une gravité extrême. Aujourd'hui, la presse sénégalaise se meurt parce que agresser une femme, journaliste, dont le professionnalisme ne fait l'objet d'aucun doute, est un acte lâche. Cette tentative d'assassinat sur sa personne nous interpelle tous, interpelle tous les journalistes et tous les professionnels des média Parce que le but de cet acte ignoble, de cet acte, acte euh, c'est de museler la presse, c'est d'empêcher, c'est d'empêcher les médias de faire leur travail. Et c'est la culture de la haine. La de la haine appelle nécessairement la haine. La culture de la violence appelle nécessairement la violence. Et là, tous les Sénégalais sont interpellés. Tous les corps sont interpellés. Que l'on arrête dans ce pays de cultiver la haine. Que l'on arrête au Sénégal de cultiver la violence. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité d'analyse par rapport aux faits. Il a des personnes qui sont émotives, des personnes qui ne sont pas doté d'une euh, capacité de discernement claire et raisonnable, qui peuvent être des fanatiques. Voilà ce que ça cause. Surtout avec les réseaux sociaux, on sait qu'aujourd'hui, il y a une amplification de la désinformation, il y a une amplification des agressions, une amplification de, des appels à la violence, une amplification des messages subversifs. Qu'est-ce qu'il il est temps que les Sénégalais résistent. Parce que la résistance aujourd'hui est du côté de ces Sénégalais. qui veulent vivre dans un havre de paix. Et l'État du Sénégal va engager ses services, engager le gouvernement pour que d'abord que la lumière soit faite rapidement sur cette affaire. Toutes les mesures sont déjà prises pour que lumière soit faite. Deuxièmement, le ministère que je dirige, nous sommes là à côté des acteurs pour les accompagner pour toute demande, toute sollicitation, pour qu'effectivement que les journalistes puissent continuer à faire leur travail de la manière la plus indépendante possible, de la manière la plus professionnelle, professionnelle possible. Et si le but de l'acte, c'est de museler la presse sénégalaise, je pense que c'est un acte vain. Parce que connaissant les journalistes de ce pays, je sais que ce sont des personnes engagées, déterminées pour, que, euh, pour faire leur travail. Aujourd'hui, je sais que des milliers de journalistes que nous avons dans ce pays sont encore plus déterminés à faire leur travail qu'hier. Et donc je les appelle, eux, à la solidarité. Parce que les jours comme ces jours-ci sont des jours qui resteront dans l'histoire du pays. on se dit tous plus jamais ça. Et cette œuvre-là doit être l'œuvre de tous les Sénégalais, à plus forte raison les journalistes. Ah,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 c'est-à-dire l'agression de Madame Maïmounandou Faye. D'abord, euh, je le dis parce que moi, je suis un journaliste, je suis de la corporation. Je pense qu'aujourd'hui, on a poignardé la liberté de la presse au Sénégal. Et c'est un acte inexcusable. Et je pense que les forces de l'ordre devraient tout faire, les forces de défense et de sécurité, euh, tout faire pour retrouver ces personnes qui sont derrière cette agression. Euh, Maïmouna est une dame brave, une femme qui a tout fait pour que la liberté de la presse soit une réalité dans ce pays. Et je pense que nous devons aujourd'hui au Sénégal travailler à cultiver la paix, à travailler à ce que la violence ne soit pas cultivée dans ce pays. Parce que la violence appelle la violence. Et je pense que cet acte aujourd'hui montre encore une fois de plus que le chef de l'État a, a eu raison de parler de paix. de réconciliation, de retrouver les filles et les fils de ce pays autour de l'essentiel, c'est-à-dire travailler à avoir la paix dans ce pays. Parce que je pense que cet acte de notre âge doit être banni. Et je pense que personnellement, au nom de tout le groupe Benno Bokayakar, nous apportons notre solidarité au groupe 7TV, à toute la presse sénégalaise, mais aussi la presse internationale, parce que Maïmouna est aujourd'hui devenue